Euh, mesures yooyu ba léegi euh, amu ci euh, loo xamante ne ni lu taxaw la lu ñu mën a duut baaraam. Mm-hmm. lu taxaw la lu ñu mën a duut baaraam jëlaguñ ko n'empêche ci. conseil des ministres bi président jël na ci wax na ci ay kàddu que ay mesures d'urgence wax nañ ko fa jël mais xëy na fii ak ci kanam wala ci suba ñu am ci ay informations yu leer waaye ana déjà damay masawu waat waa Touba parce que euh, euh, jot nañ ci information que ni am na kenn ku ci ñàkkaat bakkanam bakkanam euh, mais dafa am xaritam bu mu doon jàppale ci ndox mi rek courant bi moo ko maas mu génn àdduna ñu leen di masawu di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjana Sëriñ Mountakha defati na mëninam comme ni nga ko waxee rek parce que aussi du nekk na koo xamante ne du seetaan. à chaque fois bu amé lu xew Sénégal lu mu mën def loxom wala lu mu mën yëkëti ay kàddoom da koy def xaarul xaarul xaru nguur ci dara. Mhm. waaw mom xaru nguur ci dara machallah duñ na gulet yàgg na ko def eh, te bi yoon nag mu eh, doon eh, biir dëkkam mu nekk lu lu lu lu metti sincèrement yëkkati na 200 millions jàppale leen Barthélémy Dias yëkkati na ay ay moto pompe yóbbu fa.

ma fa war a njëkk tànk teg tànkam mhm. xam nga lu tax mhm. tey jii lii nii lu lu lu catastrophique la moo fa xew dañoo yónnee demagul gisaguñ mu dem et pourtant kii euh, wu nettoyage yi ñuy def les dimanches xaw chaque mois. bale mais mais bale mais Ousmane Sonko il se déplace pour dem bale ji wala genre def ay affaire. fu ne ma fa doon dem kay. mais Touba bu amee lu toll ni mbënd ba ay nit génn ci aduna. li mu war a def moy dem fa mastawu leen même su fekkee du mom moy yobbu li nga xamante moy mesure d'urgence président président def. mu mhm. dem fa mastawu leen. parce que li ni ko Cheikh Omar Diagne Saga sëñ Touba. Mhm. demoon nafa fa de nee na jëma jéem dil sëñ bi pour sëñ bi wax muri ni ñu bàyyi pour ne baal na ko quoi. teg ko diil da doon dem di ñaan njekk. da ko doon teg xel kon. fa demoon ñaani njekk <laughs> d'accord léegi euh, bu li amee ñu yónnee ñu ne aussi ay mesures d'urgence ba léegi gisuñu mesures d'urgence yi taxaw seetlu day am parce que bi ngeen soxlawee tey. Euh, euh, Abdou fu ma àndul ak yow mooy waa Touba ñoo vote ñoo voté Sonko ak Diomaye parce que lii parce que gis nga dañu tolloon benn période man mii ci laa bokk dañu tolloon benn période boo xamante changement lañu bëggoon coûte Ah. xooluñu ki baxna na ki bonna dañu na bëggoon changement coûte que coûte te sénégalais folli la gëna a ko fal ah. buñuy ñuy folli moom dañ naan kii baaxul par force dañ ko fi jëlé mais kañuy fal duñu xol duñ ko sétlu duñu xol nu mu mel balaa ñu koy fal <laughs> peut-être loolu moo ñu indil actuellement liñu liñu liñu dal ni té xeyna changement am mais du gaaw légui le problème qui se pose actuellement moy auto pompe dindi na ndox mais dindi wul mbënd bu tawaatee mu taawaat

ba pare ci biir bale gi nga nommé Cheikh Dieng Cheikh Dieng dem Cheikh Dieng bi ñu koy dàq ñi ngi ko fekk Touba muy étudier di xool nan lañ mën a def pour mhm. pour pour pour balaa nawet bi affaire yi mhm. ñu dàq ko mhm. kiñ fal lañ koo xam ana moom kenn xaw ma ko di xamoo ko da ngeen koo gis Touba bu ñu bàyyi woon Cheikh Dieng mu géré ko ba nawet bi jeex njaaxu mi ñu ko bëggoon dugal bañ na nga bàyyi yow nee nga ko tëriandeel defal yëpp tappale mën la defuma ko doo bàyyi nga ne léegi dama lay dàq indi keneen ka nga indi Touba ki jiite station ONAS ba fa ne

yow nag nee nga ci nga bokk ci ñi leen voté xaaral say door ëllëg bu yàlla di duma ñi leen voté parce que ñi leen voté faaw yàlla duma leen parce que ñoo ñu dugal ci giraawaale gii. <laughs> voilà faaw mu duma leen parce que ñoo jël ñoo jël ñoo xam ne bëgguñu réew mi li may wax man bu dee cadre Mouride ma wax naa leen nee leen kay xas sañ tuubaa yéen a ko jox doole jam xase sëñ Touba yéen la parce que yéen a fal jomaay jomaay fal ko. mu neex mu naqari nag. Cheikh Omar Diagne ku ko fal du man du yow. jomaayee ko fal jomaay ko ko fal. da nga mën a génne waa Touba kon ñi doon ñi war a réformer mbindum sëñ tubaa ñi leen jox doole ji. Mm. waa Touba la.

solidarité euh, boobu nga xamante ne ni ñi ngi koy wax euh, bàyyeekoo ci xale fii euh, bàyyeekoo ci kilifa yi mais également ci population yi ñi ñuy woowee ay bonne volonté doodu ah, mais am na ñoo xamante nii bu dee ci ngóor gi fi nekk nii aajowul ñu leen xaar ci lu bëri parce que ñoom ah. tey jii nii ku mel ni Mimi Touré barki dee moo Njaay la fi génn et tamit di wax ci ay problèmes yi fi nekk naan du ñoom nguur gi fi jóge woon la ci bi mu génnee rapport tey jii nii déggaat nga itam ministre bi lan la waxaat ni que euh, nawet bi du seen nawet nawetu ñi fi ñi fi bàyyeekoo la donc am na yoo xamante nii duñ leen euh, war waruñu leen bokk di leen xaar rawatina dëkk bu mel ni que Touba mais mënuñu jël réew mi jël suñu lépp dénk leen ko ba pare réew mi nekk ci situation itam ñu ne duñ leen ci xaar waaye ñoom bu fekkee te seen wareef euh, amaana moyens yi mu demandé yëpp mu ngi si seen loxo waaye war seen wareef xamuñu ko ba war ko mën a matale bu boobaa itam yow doomu bi Euh, war nga mën a euh, teel a fagaru de telle sorte que ni mbir yu mel nii bu dee taxaw du la du la du la du la du la jëlee kaw. wala boog du la du la du la arrivé. Mhm. comme ni mu nekkee catastrophe euh, mën na bañ a demee noonu fekk yow jëloon nga say mesures avant. Mhm. comme par exemple tey tout Touba yàlla baaxee na la am Touba ca kanam. Mhm. Touba ca kanam bëri na activité yoo xamante ni am Touba yu bëree bëree bëri ñoom ñoo koy fay amal. ci wàllum hôpital gis nga tabax nañ fa hôpital euh, ay ay ay ay canalisation itam amal nañ ko fa ay tali def def nañ ko fa mm-hmm. zone yu amul woon lumière ñu def ko donte du état bëri na loo xamante ni mënuñu ko mais murid si boppam daan nañ dajale seeni i 1000 francs 1000 mhm. di ko dugal chaque weer li mu tollool ñu di ko amalee ay réalisation ba taxoon na sax ba mbir bii bi mu taxawee en urgence ñoom fexe woon nañ ba tabax ay yenn euh, màkkaan yoo xamante ne nii mhm. sinistre yi mënoon nañ fa dem ci ci ci saa si dëkki dëkki ji fa donte ni que sax euh, Touba actuellement ni ndox baa ngi wàññeeku peut-être que euh, kër yi ci la à 100%, mhm. itam war nañ tamit di que ñun population bi tamit zone yi ñuy dem Touba yi dëkk yi ñu sëñ bi mhm. mais nous ñu fay dëkk tamit mesures de prévention yoo xamante maintenir yu que attaquer comme ni parce que Touba itam zone yu bëree bëree bëri amul ay canal amul daara. Hmm. dañoo ñëw rek xàll dëkk et yooyu noonu ay ay ay mbir la yoo xamante mooy indi genre yi genre jëy nii parce que hmm. itam am nañ fu ñu dëkkee. Hmm. te Touba joor la suufu joor la. lu mel ni ay mën du mënoon na fa ñàkk waaye itam euh, boo xoolee ba ci moor yi nga dégg. benn kër la miir bi daanu dal ci beneen miir. ba ba mu ba mu ba mu jur ay ay ay ay ay mort te amaana sax bu fekkonte ni que li yor foot boobu moom damay revenir à ci si si si si état rek. parce que wala sax des fois da ngay da ngay da ngay lire ba nga xamante nii doo sax mën a comprendre. waaye kër daal buy buy bu bi bu miir bi di daanu jëmalee ci mbedd mi. Euh, mbedd bi waroon na toll noo xamante bu miir bi di daanu ci mbedd bi lay lay dal mm. waaye du daanu di dali ji si si si si loolu problème mu aménagement du territoire maanaam kon Touba ba léegi dañuy ñëwaat ci problème plan de service war nañ ci mën a kiiwaat euh, xaraat seen tànk tubéy bu bu bu baax a baax. Mm-hmm. rawatina bi leen yàlla bayee ñu am li nga xamante nii moo di Touba ca kanam. Mm-hmm. di waat bu baax a baax li nga xamante nii moom la xalif bi def. Mm-hmm. ndax euh, du du du du ci problème bii nii rek la ko amalee. Euh, kii xewoon na fi. feebar bi nu mu tuddati Covid bi ñëwoon na fi defoon na yu mel noonu dégg nañ fi tamit ay jumaa yuñ fi samp muy muy amal yu yu yu mel noonu. ak ba ci. Euh, li nga xamante ni moo di temps manifestation yi ci problème yi fiy jotoon naa am ak yooyu noonu yëpp mm-hmm. taxawaloon na fi mbir yu mel nii di massaw ñi nga xamante ni ñoom la seen i doom génnoon àdduna mm-hmm. euh, mu nekk loo xamante ni jàngat la pour képp koo xamante ni yàlla baaxee na la wala may na la benn moyen boo xamante nii mm-hmm. toutefois que sa sa sa dëkkandoo wala sénégalais wala sa euh, nu mu tudd nuñ ko mën a waxee Sénégal ci boppam yitte woon na ak ndimbal nga débloquer yow say propre moyen comme ni ko Barthélémy Dias mi defee sax bu xaar kenn mhm. nga def yow li nga war a def li nga xamante nii amaana boo ko amalee bu fajul métit boobu itam dina si wàññi lu bëri mhm. ba nga xamante bu état di ñëw di résoudre si situation boobu noonu euh, du du du ko tax a importante du tout d'accord am na solo loolu ak nu mën demee daal mhm. fagaru moo gën faju daal waruñu bàyyi ba lépp ne këtt ni jon ñuy soog a jóg war nañu mën a def euh, taa dina am mbënd dina am comme comme genre ni mhm. du catastrophique ba ba égg ci état bi. loolu war dans la prévention si je comprends bien. loolu sax moy moy moy moy yoon waaye tamit askan bi tamit war nañ mu ñoom itamit di jël seen i mesures ba ya genre mbir yi bu am tamit du metti du trop si ñoom mën naa ko jël exemple ben que dëkk bu nekk fële à Rufisque à Chérif mm. ñoom euh, bi bi péage bi traversé si si si yoonu Kër Ndiaye loo boobu mm. euh, ndox bi da daan dévier wu di jaar ci seen secteur yooyu noonu ba jural fa ay inondation yu métti métti mhm. métti alors que zone boobu noonu du zone ndox foo ndox bi du sax jaar foofu mhm. mais jural na fa ay inondation ba ñoom dañ daan sonn chaque nawet même problème yooyu lañ daan am mais ñoom population bi mhm. ñoom ci boppam ñoo doon def ci ci ci ci moment bi nga xamante du nawet euh, kër gu nekk di génne dix mille parce que kër gu ci nekk dañ la sosoon soixante quinze mille kër gu ne di génne dix mille ba xaalis si mat ñoom ñu defal seen propre canal di évacuer ndox bi mooy dem géej. Mm. Euh, seen euh, eaux usées yeeg yëpp fa lay jaaree ba problème bi nga xamante ne doon nañ ko dund ci inondation dundatuñu ko. Mm-hmm. donc am na ay mbir yoo xamante ni bu taxawee nga gis ni que yow sa nguur gi li ngeen waxante woon defu ko.

mi 1960 mhm. ba léegi ñu ngi koy dund donc je pense que même bu fekkente ne régime la buy soog a installé wu war nañu euh, mën a jël justement les devants euh, ba nga xamante ne ni euh, même situation buy am du catastrophique ba yegg ci niveau ay nit di ci ñàkk seen bakkar ñuy masaw encore une fois mais problème bi mooy Abdou lan moo tax jusqu'à présent déclenché wuñu le plan Orsec nga xam ne bu mën mi tollaan fenn fi ci yenn situation yi dañuy déclenché le plan Orsec donc jël yenn ci ay mesures ngir secourir population bi. waaw jafe-jafe population bi leen ñorul rek dañ leen a talul ñoom xam nga lan man lan lañ tal heure bi nañ empêché waa APR buñ campagne ci législative yi. heure boobu ñoom seen i seen i tactique yëpp loolu la naa leen empêché di leen convoqué ñuy ñëw buñ campagne yi naa fexe ba majorité looloo leen intéressé waaye askan baa ngi dee ñi ngi dund ñi ngi fanaan ci ndox ñi ngi tawte. Mm. yow yaa ko yëg kër Jomaay taawul kër Sonko taawul. seen yoon newul ci yoon ñoom tant que ñoom seen i intérêt menacé wul ñoo amuñu ci problème loolu kese la de dañoo amul suñ jot rek. d'accord est-ce que tamit du du du du du parce que euh, euh, plan Orsec bi du seen du seen moomeel. du seen nawet moo tax ñu ñoo jël plan. non plan Orsec peut mu nekk ba ñu nekk seen moomeel. moo tax ñu ñu ñu bañ. non non maanaam da dul seen nawet. nekk moomeel ou pas l'État. déwén plan Orsec dina am parce que seen lay doon. c'est vrai état continuité la mais bu ñu wootee rupture nag. tey jii dama lay jox exemple ci ci ci gaynde gaynde sat bi il a fallu ko sénégalais wax ci waxaat ñuy soog a ñuy a euh, euh, woo ñi nga xamante ne ni amaan na ñoo nekkoon ci ci wàllu woowu. non mais lii situation de catastrophe la mënuñu taxaw ci. anam anam moom laa lay wax. ana moom laa lay wax de li tax ba léegi nii waxuñu guñu ci plan Orsec bi nga xamante ne ni par exemple état moo ko fi tegoon état bi fi nekkoon utiliser wuñ ko ba léegi est-ce que peut-être nekkul li mu nekkul seen moomeel c'est juste une question xëy na nekk nekkul seen moomeel xëy aussi ah, ñi ngi tek ñi ngi tek ñi ngi tek benen plan bu bokut ak plan Orsec pour eh, pour remplacer plan Orsec pour seen seen sen sen propre plan ñom légui en ah, attendant la euh, population bi ñom dañuy patoché ci ndox yi ñom ñu xol nenen ñu def mais changement bëri na sutura ay ñu euh, jàll ci euh, benen fonko waxtaan ci Abdou